FDS les Guelwaar ñun duñu dem ci dialogue boobu. mu nekk ab dogal bi nga xamante ne parti bi justifié na ko te nag di fàttali ay conditions am. li tax du dem ci dialogue boobu ndax dañu gis ni les condition d'un dialogue sincère. loolu amul. bu fekkee dafa bëgg dialogue bi tegu ci dëgg. dafa war a wane ni moom mi ngi ci ànd ak yéene du rafet a rafet rafet. FDS les waa di ñaawlu nekkin bi nga xamante ne Ousmane Sonko nekk na ko jamono jile. jamono bii may wax un citoyen Ousmane sonk ñu def ko presque résidence surveillée wala de gendarmerie bi nga xamante ni ñoom ñoo jël Ousmane Sonko yóbbu ko këram waroon nañu jël la constitution wan ci ban article de la constitution du Sénégal la ñu basé wu ba violer ay droits. Babacar Diop ak ay àndandoom dinañ taxaw temm ngir xeexal démocratie bu Sénégal waaye nag fas yéene wuñ ko jaaxalee ci violence. FDS les Guelwaar ñun dañuy proposer beneen yoon boo xamante ni moo méngoo ak suñu taarixu dëkk souveraineté boobu bataille boobu mën nañ ko def dans la stabilité. ci jàmm ci dal. nous sommes radicalement opposés à monsieur Macky mais pas n'importe comment. FDS Legué Loir daal dina proposer ab projet bu mu dippee Nouveau Sénégal bi le projet nag dinañ ko présenter askan wi si weeru juillet atum 2023 bi si séminaire national bi nara amal.